يا همة الشيخ أحضري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر أو حتى ننال ما نطلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي نجلين نيدي لنزيار دلن بالحق نان برمي سبحانه وتعالى بولين جغل ندال دي فسيني جانجتي لنيواح غنيلو آه، حزب السيفي سيفي موي نان وو في طريقة سيد أحمد تجاني دفا بكوتي lawraat yi nga xamante ni xayru lazima la mooy wérdi yi nga xam ni warul maanaam nekkul lu war ci taalibe bi mu jàng ko say fii da caa bokk ñaan la nag mu ci téere boobu ñuy wax xasaabu awraat si Ahmad Tijaan daaw xëy benn bis te jàngu ko ci ngeneel lañ ne mu ne képp koo xamante ni yaa ngi koy yaa ngi taqoo di ko jàng yàlla da lay bëgg bëggeen boo xamante ni euh, bëggeen spécial la mu ne képp kuy jàng say fii tamit yàlla dina ko jox yoolu ku woor weeru koor ku woor weeru koor am jeex boo jàngee benn xisbu say fii dina jox yoolu yool bu doy ne ku woor weeru koor teg ci ne nag képp koo xamante ni mu ngi koy jàng yàlla dina ko jox tamit yoolu ku taxawee leelatul qadri leetu qadri guddig leetu qadri nga naafila ko ba mu jeex wala jàng ci alxonde fi jaamu yàlla yàlla dana jox yooyu yool bu doy noonu ak fu mu mën a toll mu teg ci ne képp ku ko jàng ñeent fukk ak benn yoon 41 fois yàlla dina ko war wërsëgal li nga xam ne mooy teraanga ak wali yu ya teraanga yi mu defaloon wali yi dana ko defal ba noppi def ko moom muy làmp ci seen biir ñoom wali yi maanaam day doon wali yi kon ci kàttanu yàlla mu ne ak place bu mën a nekk mu wax ne képp koo xam ne jàng na ko ngo suba ak ku ko jàng suba ñetti yoon ba mu jeex maanaam bis bu nekk mu jàng ko ñetti yoon ba mu mat ñeen fukki fan nee na day am kéemaanu wali awliya da koy am yàlla da koy defan te day mujjee bokk ko doon koo xam ne yàlla ku muy teral la ku muy teddal la ci diggan ci ci mbindeef yi waaye kenn du ak moom te kenn du jàmmaarlu ak moom ndax yàlla da koy joxe xëyba xëybatun ilaahi boo xam ne jaamu yàlla yëpp dañ koy wekk mu ne képp xam ne jàng ko ñeent fukk ak nga jàng ko ci ñeent fukk ak benn nga jàng ko ci ñeent fukki E, fan yu tegaloo nee na kooku yàlla da koy jox martabi wali day nekk waliyu boo xamante ni yatasarrafuuna fi lxayb wali yi nga xamante ni yàlla da leen jox xam-xamu xayb xam am xam-xamu asamaan di gis lu ñëwagul yàlla di leen informer ci côté yépp di diyante ak moom ñi duñ tàggale koo yonent sallallahu alayhi wasallam ku taqoog moom ñeen fukki fan ak benn ba ci ne nga jàng ko ñeen fukki yoon ñeent fukki fan bu ci ne nga jàng ko ñeent fukki yoon ak benn kon loolu la wax mu benn mu neen koo xamante ni it euh, dafa euh, bëgg a gis benn yonant ci yonant yi wala waliyu ci waliyu yi wala kenn ci yi nga xam ne nit ñu jege yàlla yi la ne ko jàng ñeent fukk ak benn nee na dina ko gis incha allah ku mana doon boo yéenee jàng ko ñeent fukk ak benn wala boo bëgg gis wala yonant bëgg a gis incha allah yàlla dana la ko won mu ne xam ne da koo jàng tamit da koo jàng ci moom ci boppam mu jàng ko mu jàngal ko boppam wala mu jàngal ko doomam mu jàngal ko jàng ko ñeent fukki yoon ak benn nee na kooku ki ko jàngal wala moom boppam bi ko jàngal nee na kooku du gis ci àdduna tartar du gis du yëg du yëg jafe-jafe ci àdduna ak ci àllaaxira yi dafa am njàqare dafa am coono mu ne bokk na ci ngëneel tamit képp koo xam ne jàng na ko benn yoon yàlla dina ko muccal ci déegu beteel bala muy dee rek incha allah yàlla wan ko ci lu bari ba mu mën a waajal boppam képp ko xam ne jàng na ko ñeen fukki yoon tamit nee na ngir teewlu Seydina Xadir Seydina Xadir mooy ki àndaloo ñeent yàlla Muusa euh, nga xam ni ñu gën a siiw dañu wax nañ ci mina saalihiina ci nit yàlla yi la bokkoon am na ñeen na ñu ne yonantu la woon nit ku doyoon war la nag am na ñu koy gis ci jamono ba léegi sax nee na ko bëggee teewlu nee na na nga jàng sayfiwu ñeen fukki yoon nee na boo ko jàngee ñeen fukki yoon incha allah yàlla dana la ko teewalal mu ne weneen bi ci ngenee li mu ne bokk na ci ku taxaw jàng sayfiyu nee na du génn àdduna lu dul dafa dee ak ngëm yàlla nee ak walaw kaanat amaluhu la taslux donte ne ay jëfam sax baaxul wane ak lu mu mën a bakkaar bu mën a def donte bakkaaram dafa dem ba doy ni géej maanaam ay du ay ay vague géej nee yàlla dina ko jéggal ci kattanam ak mbaaxam te dina ko nangu mu teg ca ne képp koo xam ni taqoo na koo jàng jàng sa xisbu sayfi nee na kooku yàlla dina ko bindal jëmm joo xamante ni mooy ànd ak mooy moom bu demee ba war a dee ba war a génn àdduna jëmm jooju mooy ñëw jàkkaarloog moom di ko xool nee na waa ji gis jëmm jooju rafet ci moom ba jég de nee na muy nekk di sabal yàlla di yéemu ci jëmm ji di sabbal yàlla di sabal yàlla ba noonu ca la jëmm jooju ca la ñuy roccee ruuxam ci la malakul mawti di roccee ruuxam ba mu dee te du ko yëg dina kon dina sukuraat te du yëg ne mu ngi sukuraat ndax jëmm jooju muy jàkkaarloog di def istimta maanaam di ci bànneexu ci leer jamaalul ilaahi gi nekk ci jëmm jooju ba malakal mawti bi keroog muy rocc ruuxam yal na ci yàlla boole am benn tiit do am benn jafe-jafe du am benn mettit mettit tamit ne bokk na ci it ki nga xam ne dafa taqoo di ko jàng nee na bu diggee ci biir bàmmeel bu ñaari malaaka yooyu ñëwee di ko laaj mooy nakkir ak munakkir bu ñëwee di ko laaj ci ci bàmmeelam di ko laaj ay jëfam ak ci aju ne yàlla day digal xisbu bi ci boppam xisbu say moom moo koy moo leen tontu di wax ak ñoom ci gën jaarafetu tontu moom xisbu sayfi mooy tontonteeg ñoom bi mu teg ca ne nee bu buy génn ci bàmmeelam buy génn ci bàmmeelam war dem yowmal qiyam nee na jëwam dafay mel ni weeru fukki fan ak juróom maanaam weer wu badar guddi weer bu demee ba mat guddi gis nga ni muy leeree boo jugee dañ mel ni euh, day mel ni guddi gi du lëndëm nee na kanam noonu lay mel keroog waaye du ca yam nee bu génnee ci bàmmeelam ki koy njëkk nuyu mooy yonent bi sallallahu alayhi du ca yam nee bu demee ëllëg ci yawmal qiyaam buñ koy bu ñuy peser balance yi ci jëfu nit ñi jëf yu baaxee yu bani nee na moom kenn du ko réglé bu jëfam kenn du ko peser nee dañ naan kii de doon na jàng xisbu sayfi nañ ko nañ ko bàyyi bàyyi leen ko mu dem nee bu yeggee ci siraat siraat mooy buum ba ñuy jéggee safara pour dem aljanna nee na foofa xisbu sayfi ci boppam xisbu bi ñaan ngay doon benn warwaay woo xam ne moo cay war nee na mu daal di ko jéggi siraat ba mel ni benn melxati maanaam xef ak xippi rek mu yóbbu ko aljanna xam mu ci wax ne nee na du doon du warwaay ab malaaka lay boo xam ne mooy ñëw ànd ak moom mu ne ko yow yaay kan mu ne ko man de maay ñaan bi nga xam ne daan nga ko daan nga ma jàng yow ci alduna mu ne bokk na ci ngëneel yi ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle nga xam ne ñoo koy ziyaare ji ñuy jàng ñaan bi xisbu sayfi kon mbokku talbe ñu bàyyi ci xel ba ku ziyaarati yonent bi mooy jàng xisbu sayfi loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ko moo wax ne it képp koo xam ni taqoona di ko jàng yàlla dina ko saxal ci aljanna ci barke jàng gi koy jàng bokk na ci ngeneel it moom nee na sayfi amul lenn lu ko gën a mën a sippi nit ki simmi nit ki ci bàkkaar amul nee amul lu ko gën a mën a lu gën a mën a nit ci bàkkaar xisbu sayfi am lu gën a mën a yëkkati nit ci daraja ci wàllu yàlla mooy maqaama ci wàllu yàlla ak daraja ci àdduna nee na lu romb xisbu sayfi nee na amul kon xisbu sayfi lu foor la dafa làmb adduna lamb làmb àllaaxira moom sax yu waxoon na bi muy tudd Cheikh Omar Fouti na ne yu àllaaxira yi rek lay tudd ndax adduna yi xam naa ne bu ko tuddee euh, euh, bu guddi ci xuus loolu waaw aju yenn yi ci alaxira yenn teraanga yi la tudd yu ci bari dof ko nëbb mu teg ci ne bokk na ci ngene yi ba tey ku koy jàng yàlla dina ko xaraf boo ci jàng nee na daraja lay doon ci aljanna masalan boo jàngee boo ne allahumma allahumma ñaata xarif la ñaata xaraf la alif ak ñaari laam ah muy ñett nga teg ci ha ak miim muy cinq xaraf allahumma rek te waxugo anta allahu almalikul xaqul mubin bal yegg ci laa ilaha illa ant waxuma la ci ñaan wi yëpp loo ci jàng xaraf boo ci jàng na daraja la ci ci aljanna maanaam eh, étage lay doon ci aljanna nañu ko yàlla defal mu ne ku ko jàng ku bind tamit ba jeex nga far ko nga raxas ko def ko ndox jox ko sa doom mu naan ko yàlla ubbil na ko lépp luy buntu kiiraay ci lépp loo xamante ni luy muslawaay la yàlla ubbil na ko ci bunt amul lu ko mën a gaar cheytaane du ko ñemee amul du rab du jinne du dara xisbu sayfi boo ko jàng cheytaane du la ñemee cheytaane du la ñemee jinne du la ñeme lii ñuy wax ak ay rab ak yëpp yi ngay dégg day mel ni ay léeb ak léppoon ci yow dara doo dara dara du la tiital yàlla moo def loolu moo ci def moo def barke boobu ci biir ñaan gi mu ne ku ko jàng tamit jàpp ko barkeelu nee na bu ko barkeeloo rek nee na tolloog soixante dix mille malaaka dañ ko teewe ci barkeelu gi koy barkeeloo rek mu ne teg cee boo ne allahuma anta allahu almaliku alxaqu almubin alqadimu almutaazir bilazamati walkibriya almutafarid bilbaqa alxayu alqayum alqadiru almuqtadir aljabar alqahar alladi la ilaha illa anta googu ne boo yeggee foofu nga taxaw nee na malaaka yëpp dañuy sujjoot malaaka yëpp dañuy sujjoot ñi daal dina ko loo bëgg waxal gaaw sa xaajo faju na waxal gaaw sa xaajo faju na ci diggante boobu rek ah, foofu la sëriñ bi yam mu daal di wax na nag képp koo xamante ni bëgg nga koo jàng nee na dajale nañ mboolem jagle yëpp ak karama yi yëpp ci eh, li nga xamante ni benn taalif bu gàtt la ñu tënk ko ci nee na tolool na ci nee na ñu taqoo ko te saxoo ko di ko jàng waaw taalib Cheikh Ahmed Tidiane nag mën na koo jàng wala ko am ndigal ci beneen wér du xam ne Chadili la wala dem am ca ndigal ci sëriñam mën ko jàng parce que eh, xisbu boo xam ne du ci tariqa bi rek la aju moo tax léegi mu di cay teg ne xisbul mughni آه، حزب المني حزب المغني موينيان بيغا خن موينيو تي غينا حزب السيفي وا موني كيب كو خامني جانغني حزب السيفي بن يون ولم تزيد تا دولي و تا بنن نينا نا جانغ حزب المغني بو جانغي حزب السيفي بن يون نينا جانغال حزب المغني تجيكو فكان دا غاي جانغ 40 حزب السيفي مون غا جانغ با بري غا تجيكو حزب المغني حزب المغني با موني بوكو نتي اي غنيلام ku koy eh, ku koy jàng nee na da ngay jàng xisbu sayfi nee na kooku yàlla da lay bëgg bëggil boo xamante ni amul amul frontière moo tax mu ne ku taqoo mbëggeel googu cofeel googu ku ko taqool nee na yàlla foog mu nattu la nee na yàlla dana la nattoo képp ku taqoo bëgg yàlla eh, cofeel gu jóge ci yàlla yàlla dana la nattoo ñàkk googu منك ولا يمنع بفضل الله تعالى من ذلك الامتحان الا قراءته يعني نياك غوغونك آه، دار منلوكو منلوكو فانك لولو جاي جانغ حزب المغني يعني بو جانغ حزب المغني ان شاء الله يلا دينا لا دينا لا مسال سي نياك غوغا كون بو كرفي ني خامني حزب السيفي بوكو جانغ و باراي دانغ تاورا تك حزب المغني موم لا نان موي واني دوز بي السيفي دا فا ام دوله فور آه، آه، لولو مو تي نيو تي لي خمو بنن بين متجه كوني كو جانغر سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر يوال بيتي نك رك موي يوال بي نك تي حزب السيفي بودي مي تي تير واخ موي شمار تجاني سي سكوري مي واخ ني بوكو جانغي نين فوك اك بن ييغل ني جانغ حزب السيفي حزب المغني موم إنا أنزلناه في ليلة القدر نانا داي تخاوي تخاوي بوبو نانا لي نك مونكو جيلي تي سي رحمه تجاني مو جيلي كو تي سيدنا سيد الوجود وعالم الشهور سيدنا محمد سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يلا يلا بولن يجي طالب تيجان ييغا خامتاني يلا سير عبد الله نانغول سين سينو طالب تني دوندو تي دي تي ديك تي ak suñuy mbollem do xamanteni ci suñu njabot lañu doon ba yàlla di wal baftu bi jaahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam bi wa wa xabibihi wa amini sirrihi mawlana sayyid ahmad atijani radiallahu anhu wa radahu anna bi amin aqul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu alaykum wa